وصار الحق من الحق المبين لي قال ما xaar bu tëj xaar bu tëj alors El Hadj nañu dem base base waaw. dëgg la dëgg la وصار الحق من الحق المبين